ay dal yu màbb foofe ca suufu pont Cambérène yëkkati woon na coow bu bari ci loola nguur gi daal dina ci jël ay matuwaay askan wi fa fare mu ngi xamle ni doonul li nga xamante ni mën na téye vague yi. waaw sama xalaat si tali mooy euh, tali bi baax na fi am na njariñ lool sax pour euh, population Cambérène pour ñeneen sax ñu dul waa Cambérène. Euh, lan leen waxoon sa commencement bi rek ñoom la moom la ñu gis nii mooy yàqu-yàqu bi parce que ban leen koy def lan leen fii de kenn bañu tali jaar fi mais bu fi tali jaaree tôt ou tard géej gi naka lekk te la preuve mooy euh, commencé nag lekk gis ngeen euh, fee na mu mel géej gi gas na lépp te géej gi ba mu koy gas deful lu dul 2 mètres te géej gi des mu dem ba ay 3 nangam kon ça veut dire que noor bi bu defee ay 3 nangam tel doo tel dootoo ko gisati. non lii ñu si def moom bañ koy sax moo gën bu fi géej gi fekkaatee da koy jëlaat sànni war fële. parce que gis naa ñu baari fa ay xeer jël suuf xëj jël suuf sànni fa te géej day gas kon loo loo sëq foofu da koy gasaat yóbbuwaat si si géej gi noonu noonu lay def te pour man de man ma koy soog gis leen rek la man sama gàtt bon xam nga ñu koy xeer xeeru mënoo yu ñuul yi mag yooyu xam moo mën loolu pour man loolu rek moo ko mën téye nekk te fi fi gasoogum nii place xor la fii ay xor la ay xor la am géej gi géej gi day gas da ngay jeg saa gis fene mu def ko ay montagne montagne yooyu rek moo tax affaire bi di gasu moo tax gasu solution bon man sama xaar lool la def si ay moulon yu mag a mag a mag man ba ma gis njëkk gis loolu laa wax loolu rek moo ko mën téye sa ëllëg sa laa gis nag ñu fa indi indi fa seen xeer di ko xaat ak suuf mënu ko téye tout ça day gasuwaat. bon dal nag moom li am man entreprise bi laay blâmer quoi seen faute la parce que boo ñëwee ba ci watu géej di ci liggéey da ngay xool bu baax li ngay def quoi balaa nga koy def parce que géej moom a tout moment dafay mer comme ni ñu koy waxee quoi day fees. vague yi agité affaire yooyu bu ñëwee am na nu liggéey bi demee rek lu mu fekk mën na ko yàq ndax dafa bari doole bon dali avant ñu koy def dañu waroon def fondation gas ko mu dugg ba ci biir kuule ko def ko fondation comme kuy def fondation batiment jël pavé yi teg ko ci kaw fondation bi bu ndox bi ñëwee du laal pavé yi si fondation bi lay dal arriéraat boobaa du ko mën a gas mais ñoom dañ ñëw jëlee ko si kaw rek wàcc suuf teg noonu vague bi bu ñëwee day dóor suuf si day gas bu gasee nag après kàmb googu muy def mooy waral màbb bi ci suuf quoi. non non liggéey bi baaxul te day yàquwaat ci loolu la jëmaat leneen lu lii sax day yàquwaat ci tali bi nii parce que defar bi baaxul côté ba léeg-léeg booy dem comme Malika côté yooyu tali bi dafa suufee dañ ko waroon yëkkati tóoj ko ba mu kawee parce que géej la bu ko ndox mi jëlul suuf si dangay nangu ndax jotoon na fi am problème suuf si nangu ko ci tali bi noonu ba muy def ay choc di def ay accident yu kenn xam tali bi moo suufe quoi ko waroon yëkkati ba mu bon. bu ñu fiy dugalati liggéey ñu xool bu baax ñin koy jox quoi wala ñu xool ñi fi dëkk experts yi fi dëkk yu am yu seen xel màcc ci liggéey boobu ñu ànd ak ñiy liggéey liggéey boobu quoi entreprise bi koy liggéey man moom loolu rek laay am ci lu may wax quoi parce que lii lim nuy daal dafa bari quoi te et puis liggéey tamit balaa nga koy teg ci dëkk danga ko war exposé ba pare quoi plan bi boo ko defee nit ñi xam lii lan la ak nan lañ koy defaree. bari na ci yeneen liggéey yu dul lii na ci yeneen liggéey yu dul bii moo gën a fës quoi que moom lan médiatiser moo tax. mais bari na ci yeneen liggéey yu dugg ci dëkk bi yu am ay yu mel nii. waaw yàq yàqu yi fi amoon moom ba léegi moo fi nekkaat ba léegi nii quoi ba léegi moo fi nekkaat li ngay gis nii ba léegi moo fi nekkaat parce bi mu amee def nañ leen signe ñëw nañu bi ñu ñëwee présenté nañ affaire bi xëpp ci suuf ba mu fees dellu def ci ay xeer bàyyi ko noonu. non de solution liggéey bi baaxul liggéey bi baaxul techniciens yi tamit xamuñu dara parce que xamuñu dara bi mooy boo ñëwee fekk la affaire boo xam ne koy liggéey liggéey bu baax. mais dooy ñëw nëbb bëtu nit ñi. liggéey bi baaxul parce que actuellement nii géej gi dafa toll si cooroon cooroon mooy day géej gi day xaw a bàyyi bàyyi mooy day neex. xam nga mais am na période boo xam ne ni bu ko fekkee montagne bi da koy màbb lépp muy jamonoy seddaay beeg yooyu ñu koy woowee noor. solution bi ma leen di proposé mooy ñu ñëw defar affaire bi mu baax ko ñu defar ko mu baax mais pas du lëndëmal ba tund ñi nii xam nga teg ci ay xeer camoufler ko bàyyi ko noonu pour gars yi fàtte ko. di ñaax nguur gi mu jël ci ay matuwaay yu mat sa déployé ñi seen xel màcc ci li ni mel ndax rek mooy lu gën.